ciy wax jëf bi ak doxalin bi la ñuy conte la ñuy contesté mais bu dee ànd ak wala nuyu ci lu doon ne état yow luy sa moom ci seen doxalin ñoom am nañ sañ-sañ am nañ doxalin mais problème bi mooy est-ce que dinañ la ko imposer nga nangu ko loolu mooy wax gi mais bu dee ci àdduna ni muy doxee képp ku ne jëf lañ jëflanteeg ñoom wala du ma doxante wala du ma nuyanteeg ñoom kon bul dem tu bul dem tugal bul dugg ci avion bul am téléphone bul dugg oto demal dugg ci sareetu mbaa bi comme sunu maam Cheikh euh, nu mu tuddati Cheikh déedéet du ma ci génn de yéegal bi mooy li ma la wax loolu mooy yéegal bi dama ne yéegal bi la loolu mooy yéegal bi li ngeen bëgg wala ni nit ñi bëgg loolu manta nekk hmm. kon ñun nañu jël sunu réewu bopp buñ jëflanteeg tubaab buñ jëflanteeg naar bu jëflanteeg kenn ñu des si sunu réew mi rek lu ñu bëgg ñu am amandoo ko loolu mënul nekk mënul nekk xam nga lu ñuy bañ jëflanteeg ñoom doxal li ñuy doxal loolu mooy wax ki jaañ waaw est-ce que yow nag maanaam Rousseau bi nga gisee ci nguur ak Ousmane Sonko yoo xam ne bu dikkee mhm. la muy njëkk def mooy criminaliser ngóor jigéen nga ñëw ci nguuram ñu tajab imaam ci wàllum xeex ngóor am na ku nekk ci ligne bi Régis dimbali leen ñu ci affaire bi lii de foor na ci suñu nopp yi lool da ngay gëmm ah. say bët di sakk say nopp daa foor lool jaañ mhm. dama ne ndax amoo kersa aw ma benn kersa ci nguurug Ousmane Sonko ak ma ne la du mbiru góor gi la mu wax tagu waaw ñu ngi koy déglu allo allo ñun ñoo la déggul bu baax sëñ bi bu fekkee mën nga yëkkati kàddu bi <laughs> euh, allez allez waaw dama ne hmm. mbiru góor jigéen bi ngeen di ne allo non non ayca dama ah, d' accord mm-hmm. waaw la ndax amoo kersa ci nguur ak jonkoog samay jamaay fii mm-hmm. ñu toll nii mm-hmm. nuy jàppab imaam di ko tëj ngir da doon xeex góor jigéen déedéet bu leen déformé de du xeex góor jigéen lu mu wax ci confirmation peut-être ci la baa jaxate wax te yow la baa jaxate wax yow ñemewu ko wax lu baa jaxate wax ah yow wax bu ñaaw goo xam ne ne ku taxaw sax di confirmer wala di wax li baa jaxate wala di dooleel li baa jaxate wax mooy xam nga ne la ngay xalaat wala la ngay jëf pour sa askan rafet ci 2020 ci réew mi du gan ci réew mi la mu wax la mu wax ndax day gan ci penc mi gan la gan la monsieur su ko fay dégg dee dégg mosuma dégg wax bu ñaawee noonu hmm. waaw wax ma wax ma lan la wax góor guy sàkk góor ba mu feebar ñu yóbbu ko ci hôpital yi nga jiñ ko do nu mu tuddati kilifa jàmbur

allo allo ñu ngi lay déglu. tur bi naka la ak foo ñu woowee. dégguma leen euh, moom déggante bu baax. ñoo ngi koy dégg ma moo ñu déggul allo allo. ayca bisimilah. ayca yow rek la ñuy teewlu. Mm-hmm. ayca. loolu mm-hmm. mm-hmm. dëgg la ñu ngi lay jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jaajëfal bu baax a baax jërëjëf ayca waaw eh, li ma bëgg a wax ne eh, ci euh, mbiru imam bi kon defe naa ne sunu euh, kii bi euh, ki génne léegi. ci moom ngay sukkandiku noonu. déedéet dama ne waxuñ ne day xeex góor jigéen góor jigéen ñëpp a koy xeex même sànq nee nga ci criminaliser góor jigéen waaw ñun ñu ngi door a toog Ousmane Sonko tey assemblée ñan ñoo nekk assemblée jëmaguñ ko tasaguñ ko ba li mu bëgg wala li ñu bëggoon wala lañu doon wax ñu def ko. Ah, ndax lan non mënagul nekk defal ndànk lu tax lu tax waa bu dee un assemblée amuñ fa euh, kii nu mu tuddati amuñ fa pouvoir bi ci am majorité bi majorité amuñ yéen yéen a sàkk woon à ce ne ngeen am minorité ndaxte waa déet ñu lañ sàkk woon ah. sénégalais yi ñoo ñu joxoon quatre vingt à quatre vingt deux waaw wala déet mais moo wax ne d'accord ci président bi sax ñu ko jox majorité pour ñu mën di contrôler réew mi waa déedéet dama ne équilibre la doon laaj am na ko mun na liggéey mais moment bii waaw lépp loo bëgg tant que téewoo assemblée ba doxal ni nga ko bëgg a doxali sa politique mënoo ko doxal kon kay rupture amul déedéet rupture am na dama ne doxalin ba laa tax déglul ma wax déglul kale ci yéen lan moo kale jamono ji lu leen kale li ñuy kale mooy li ngeen wax ni ci criminalisé loolu dañ ko accepté ko nangu mais dafa ne woon ñibi jaay kay yóbbu na lan moo tax demoo leen ngeen xaar ba ñibi dem waaw ñibi moom peut li muy def c'est bien daf ko daf ko déposé mm. mais bu ñu ko déposé ñel ñoo bañoon mm. ñoo fi nekkaat ba léegi yéen yéen a mel ni ne xam nga sénégalais li ma jaaxal dafa mel ni ne sénégal bu njëkk ba ak bii dafa bawudeeti dafa mel ni ña fa nekkoon nekkatuñ fi déedéet ñu ngi fi nag déedéet dem déet dem naag gouvernement mais demul ak ay nitam yi nekk ci biir nguur gi assemblée muy assemblée defal ndànk ay député kay nga xanaa déedéet ay député mag ña nekk ci administration mag ña nekk ca yeneen poste yeeg yëpp ay nitam a ngi ci ah. waaw yéen a ngi teggi di teg déedéet ñu ngi teggi taxul ñu daj lépp de

lekkuñ ci dërëm defuñ ci lu ñu war a def dañ waroon dañ def lu ñu waroon def waaw wala déet ñun dañ loolu duñ ko bañ mm. parce que des fois nga nekk ci ñu bon te de terewul yow nga baax waaw ab ah lala ñun loolu lañ gëm léegi nag ñi nga xam ne ne nekkoon nañ ci nga baax te bon ba bëgg de waaw d' accord naa amaana sax waaw leen wala d' accord naa d' accord naa loolu moom foog mu am mm. loo baax baax lu ngeen dajale day am ñoo xam ne dinañ nekk ñu bon faaw mu am tànn loolu moom foog mu am tànn xam nga lu tax yàlla moo binde noonu àdduna mm. bu dee sa njaboot gi nga jur sa ñetti doom sa ñeenti doom benn ci man am na koo xam ne ne moom mooy mooy ku gën a doy waar mm. loolu moom yàllaa koy def loolu kën mooy laa foog yàlla am kum la nattul mm. pour nga gën ci jaamu yàlla pour nga gën a xam ci ak kii xam ne mbir mi liy baaxal du yow mm. moom la yàlla mooy baaxal ah. kon d'accord naa ne voilà merci beaucoup waaw parce que seen <laughs> voilà moo tax bu ci yenn ñu bokk ci ñun di def yenn erreur wala nangam am na ci mënul ñàkk mais nag lay waxe lay jooñi mooy ñi nga xam ne ne ñoo ŋànk yëg fi nañ nekk nit ñu baax nañ nekk ñu correct nañ nekk ñu jub nañ nekk ñu jubal mm. loolu moo ci am importance mais nag yéen bi ngeen opposé nag da ngeen a jël ñëpp sol ci benn mbedd sol waa APR ak ñëpp ngeen jëleen sol ci benn mbedd rek déet bul ne déet bul ne kon non tànnal kay gouvernement Macky Sall non gisuma leen ci bàyyi woon waaw déedéet déedéet Macky Sall ak ay juge am Macky Sall ak i procureur non tànnal ma ne ko ba gis nga yëpp mooy jaxasoo bi. Mm-hmm. non ñun nangu nañ parce que tamit nag gis nga boo toogee. waaw ah da ngay fal nag ka nga wóolu. waaye boo toogee da ngay fal tamit ka nga xamante ne moom nga àndal si xeex nangu nañ. waaw déedéet waaye bul ne des na. <laughs> waaw des na. des na non des na nag bëri na ñoo xam ne non non ah. non déedéet avancé. mais da ngay ne booy avancé. te ceeb bi yokk. waaw ba tey de ñu ngi ci yoon bi de bul fàtte ñaari weer defaguñ ko de. le 15 ngeen waxoon man na man na ka kay le la waat déet déet déet déet ba nga waatee ñaata at ñaata kii jour lañ toog door def